xam nga man je suis pas un conseiller politique <laughs> lu ma lu bëgg a wax mooy euh, par rapport à la question je pense que il est important te Sénégal fu mu toll euh, ñu jàpp ñu xam ne politique du caaxaan politique du caaxaan. dañ koy fooye. <laughs> affaire bi du jeu de dupe wala intelligent du dox si maalu nit ñi non politique wala pour dama jàpp ni tey dama dama jàpp ni tey c'est-à-dire au Sénégal euh, neex lamiñ taxul ñu fal la rafet yëre taxul ñu fal la. dawal oto bu rafet taxul ñu fal la. Sénégalais léegi il convoque d' autres critères je pense que sax c'est aujourd'hui parce que. yàgg nañ ko yan critères. valeur soo xoolee même Macky Sall en 2012 le slogan c'était gestion sobre et vertueuse avant le parti mais c'est des slogans qui ont porté ça veut dire les Sénégalais ils ont davantage plus besoin d'intégrité que d'autres choses ils ont même davantage plus besoin de sincérité mm-hmm. que de bonne communication